L'air L'Ergue TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 di ñaan yàlla euh, jàmm ak xéewal ak yërmande yàlla na ko yàlla sotti ci suñu yonente boobu ak saxaabaam di ñaanal yàlla jàmm ak xéewal ak yërmande képp koo xamante ne bi jël na tànkam teg ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ñu ñëw tey di fàttalante ak ci benn mbir bu ndaw muy xijaabul maratul muslim muy muuraay jigéenu jullit waaye ñuy fàttaliwaat mbokki ne kiy wax du boroom xam-xam ndongo daara la rek bu toll ci fer ijji waaye nag ñuy dellu ci lu yàlla wax ne fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin jullit yi fu ñu toll nañuy fàttalante ndax fàttali dina jëriñ ñi delluwaat ci xadis yonent bi sallallahu muy wax naan balligu anni walaw aaya donte le benn aaya la sax jottali ko say mbokki jullit ñu war cee mën a jëriñu kon looloo waral ñu yëkkat suñuy kàddu saa su rek ci loolu waaye di tegtaloo beneen aaya bi borom subhanahu wa taala di wax naan kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bilmaaruf wa tanhawna anil munkar nga xam ne yàlla def ne jullit ñi saa su ne rek war nañoo nekk di dénkante mbaax waaye di tere li nga xamante ne bi muy safaan di dellu ci saa su ne ñu ngi jéem di teg suñuy tànk rekk ci amru bil maaruf wa nahi anil munkar kon looloo waral rek ñu yëkkati suñuy kàddu di wax ne ab ndongo daara bu ndaw rek moom mooy ñëw di fàttalanteeg yéen gannaaw loolu tamit ñi ngi ziar suñu masaayix yi nga xamante ne bi ñu ngi ci biir kër gi nekk suñu ay boroomi xam-xam ñu naw loolu loolu seeni xam-xam te ñu rafetle ko lool ñu ne yëkkati woon ay kàddu sax warul maa daama ñoom ñu ngi ci biir kër gi xëy na yàlla daf ñu nattoo rek ñu nekk ñi nga xamante ne bi dañu féetewoo ci fànn bi muy wax ak daawa ñi ngi sant allah subhanahu wa bu baax nag di ko ñaan mu defal ñu sellal ci wax ak li nga xamante ne bi moom mooy suñuy jëf tey tey nag tomb bi ñu indi muy hijaabu maratul muslim wala muuraayu jigéenu jullit buñ ne muuraayu jigéenu jullit kon dañ ne muuraayu jigéenu jullit ñi ñoom ñooy ñi ko moom lu ñuy tegtaloo foofu ñu ngi tegtaloo ci aaya bi ci suratul ahzab ay 59 boo fa delloo yonent sallallahu alayhi wa sallam allah subhanahu wa taala mi ngi koy wax naan baada auzu billahi min asheytaani rajim yaa ayuha nabi qul li azwaajika wa banaatika wa nisaai lmuminin yudniina alayhinna min jalaabibihinna dalika adna an yurafna fala yudayna wa kaana allah gafur rahim allah subhanahu wa taala mi ngi wax ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa ak bépp jigéenu jullit kon képp kuy jigéenu jullit tey dugg nga ci aaya bi te ñu ngi lay dénku tamit nga dem dellu ci Qur'an nga xool ne boo fa demee di ko fekk aaya bi nga gis na jigéenu jullit tamit démb am na fi nga xamante ne bii fa la ko islaam fekkoon ñu di ko torturer di ko ko di ko métital mais islaam daal di dem jële ko foofu tey jox ko xuriya jox ko liberté kon képp kuy jigéenu julli rek war nga mën a tey delloo njukkal allah subhanahu wa ci santaane bi nga xamante ne bi sant nañu ko ñu delluwaat di xamal suñuy mbokki jigéen ne muuraay du na mais farata boo xam ne allah subhanahu wa moo ko farataal ci suñu kaw ñun jigéenu jullit ñi waaye mu tàmbalee ko ci biir këram ndax dañ ne digle sangaay balaa ngay sangu kon yonent bi sallallahu balaa mu ñuy digal ñu ñu xijaab da koo digal ay soxnaam digal ko ay doomam waaye mu digal ko nag soog koo digal nag bépp jigéen jullit nga gis ne yaa umu salama mi ngi naan keroog bi nga xamante ne bi ay hijab bi wàcc na mbeddi màkk boo xoolee jigéen ñi dañoo ñuul kukk ndax lan ndax bi ñu déggee aay bi ñoom xaaruñu dañ naan dañuy doxal suñu ndaw déedéet xaaruñu ne ay ay jeeg yu ndaw lañ xaaruñu ne tollooguñ fu ñuy muuroo mais ci saa si ñoom dañaa daal di lan dañaa daal di jëfandikoo li nga xamante ne bii mooy qawlullaahu taala muy waxu borom subhanahu bii nga xamante ne bii moom moo ñëw ci xijaab beneen bi ñu ngi fàttali mbokk yi ne xijaab nekkul aaday benn réew du aaday waa Makka du aaday waa Sénégal du aaday waa Murtani du aada benn dëkk du aada benn xeet du aada benn askan mais santaane Allah subhanahu wa la yow jigéenu jullit bi saa boo demee ba nga xamante ne bii nekk nga jigéen boo xamante ne bii rek muskàllaf nga xijaab bi war na la te du la wàcc ba keroog ngay sàngoo suuf mu nekk loo xam ne luñ farataal ci yow comme ni yàlla farataalee julli ci yow mu farataal koor ci yow ñoom la farataalee ak ci yow yow mbokk mu jigéen islaam islam wala allah subhanahu wa nii la la farataalee nga nekk koo xamante ne bii dangaa war a muur sa yaram kon ñu gis ne muuraay faratal boo xam ne allah subhanahu wa taala moom moo ko farataal ci ñoom ñu ne nag kon léegi lan mooy charte muuraay boobu nga xamante ne bii yàlla farataal na ko ci ñun parce que am na ay shurut am na ay charte yoo xamante ne bii noonu lañ ko war a defee ñu ne bokk ne ci xijaab boobu mu suturaal sa mbooloo mi yaram yow jigéen bi ndax boo delloo ci e, yonent bi sallallahu mi ngi wax naan al mar'atu kulluha awra maa adal wajhi wal fay jigéen léppam awra la ba mu des xar kanamam ak tënkam am na tey yenn ci ay jigéen tey egg nañ ci di muur seeni kanam kenn du leen ko dàqal ndaxte boroom xam-xam yi dañoo wuute ci muur kanam kon képp ku ko def am nga tuyaaba ku ko deful tamit doo am benn bàkkaar ndax ak wuute da cee am waaye ñu lay xamal ne yu jigéenu jullit bi charte yi nga xamante ne bi mooy charte hijab mooy li nga xamante ne bii moom mooy dëppoo hijaabu charia bi ñuy wax mooy muuraay bi nga xamante ne bii moom la charia teg muy hijab boobu warul xat warul nekk lu yaraax warul nekk loo xamante ne bii col dafay niroog colu góor comme ni ko yenn jigéen ñi di defee warul nekk loo xamante ne bii dafay nekk colu kéefër warul nekk muuraay boo xamante ne bii danga koy xeeñal parfum di ko génne warul nekk yére boo xam ne dafa siiw comme ay jeesneer rek ay tisi yooyu nga di ko def hijab warul nekk hijab boo xam ne dafa gàtt warul nekk loo xam ne dafa yaraax warul nekk loo xam ne dafa xat warul nekk loo xamante ne bi tamit xamante ne bii bu siiw la nga di ko muuroo déedéet mais hijab boobu dafa am ay couleur yoo xamante ne moom nga ko war a muuroo waaye dafa am ñaw boo xam ne noonu nga ko war a ñawee mu dëppoo li nga xamante ne bii moom mooy hijabu charia parce que li waral loolu mooy da gis koo xamante ne bii fu sol tubéyam daal di kolu déedéet boobu du hijabu charia wala nga sol sa tay baas daal ciy teg kol ñu ne déedéet boobu du hijabu charia wala nga sol sa marinière daal di ciy teg kol ñu ne déedéet boobu du xijaabu charia mooy li nga xam ne mooy xijaabu charia mooy xijaab boo xamante ne bii dafa tàmbalee ci diggu bopp wàcc ba ci li nga xamante ne bii moom mooy ay tànk euh, moom mooy say tànk yow jigéenu jullit bi tegtal bi ñuy tegtaloo foofu boo delloo ci sootu nuur allah subhanahu wa taala mi wax naan wa qul lil mu'minaati yaghdudna min absaarihinna wa yaxfazna furujahunna wala yubdiina ziinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihinna wala yubdiina ziinatahinna illa li buulatihinna ba aaya bi jeex boo delloo ci suurtu nuur boroom subhaana taala mi ngi wax naan wa qul lil mu'minaati yéen jigéeni jullit ñi yaghdudna min absaarihinna na dangeen wàccee seeni bët kon ku nekk xama ne jigéenu jullit bi buy dox dafa war a wàccee ay bëtam dafa war a wàccee ay xefam dafa war a wàccee li nga xamante ne bii moom mooy ab gisam mu ne waaye nag euh, wa yaxfazna nag waaye mu nekk koo xamante ne dafay sàmm payam dafay sàmm boppam ba nga xamante ne bi dina mucc ci lépp lu xeetoog njaaloo dina mucc ci lépp lu xeetoog muy jojjonteeg góor bi nga xamante ne bii daganu ko moo tax mu ne wa yaxfazna furujahunna nañu sàmm seeni pay lan la ci borom subhaanahu wa taala dolli mu ne waaye nag wala yubdiina zinatahunna illa ma zahara minha mu ne bul génnee sa taar yow jigéenu jullit li nga xamante ne bi dafa feeñ ñenn ci ay borom xam-xam nañ ko ci ne jilbaab bi nga xamante ne bi jigéenu jullit bi mi ngi koy teg ci kawam yére ba muy jiital ca biir yére boobu mun na nekk taar ñu ne kon jilbaab boobu mooy nëbbu taar bi ñenn ci ay boroom xam-xam dellu ci nañ fuddan ya muy def ci ay loxoom wala jara ya muy takk ci loxoom wala jaaro ya muy takk ci loxoom ah, ku ci nekk ak na nga ko firee nga ne wala yubdiina zinatahunna illa ma zahara minha mooy li nga xamante ne bi dafa tege ci kaw li nga xamante ne bi moom mooy hijab boobu moo nekk kon ci biir hijaabu afwan li nga xamante ne bi moo nekk ci biir hijab boobu moo tax mu ne la wala yubdiina bul génnee zinatahunna sabta illa ma zahara minha lu dul li nga xamante ne bi allah subhanahu wa taala moom moo ko feeñal mooy li nga xamante ne bi mooy hijab bu tege ci kaw am na ñu ko daal di firee noonu wal yadribna bi xumuruhinna ala juyubihinna mu ne waaye ne nañuy wàccee suñuy ximaar ba ci suñuy dënn kon ku nekk xam nga ne muuraay dafa war a tàmbalee ci bopp ba ci dënn wala mu tàmbalee ci bopp ba ci ay tànk waaye muuraay nekkul loo xamante ne bi a yem ci baat kese wala mu yem ci muuru muuraay goo xamante ne dafa yaraax ba nga xamante ne bii say létt létt yi da koy gis wala sa bopp li mu formé sax dañ koy gis wala li nga xamante ne bii mooy sa dënn yow jigéenu jullit bi setin ba nga takk sax dañ koy gis wala muuraay gi nekk loo xamante ne bii li nga jiital ci sa biir yére sa biir yaram bi dañ koy gis su boobaa da du dëppoog li nga xamante ne bii moom mooy xijaabu charia mooy xijaab bi nga xam ne allah subhanahu wa taala moom la gërëm jigéenu jullit bi daal di muuroo noonu kon li yàlla gërëm ci jigéenu jullit bi mu koloo noonu wala mu muuroo noonu mooy muuraay gi dafa war a matale ci euh, matal mbooleem yaram bi maanaam mu suturaal mbooleem yaramu jigéenu jullit bi yépp ndax ku nekk xam nga ne almaratu kulluha awra jigéen moom léppam awra la almaratu awra jigéen ci jëmmi boppam rek awra la kon looloo waral yàlla dénkuñu ci ne nañu nëbb suñuy yaram nañu muur suñuy yaram nañu fegu li nga xamante ne bi moom mooy suñu yaram ndax ne allah subhanahu wa taala ci yërmandeem ak mbaaxam def ci teg ay xéewal yu bari ci jigéen bi nga xamante ne daf ci dafay xijaab comme ni ko yàlla santaane dafa teg ay njëggal ak ay ak càmm gu rëy ci jigéen ji nga xamante ne bii dafa jël yaramam boobu daal di koy muur daal di taxawee santaane allah subhanahu wa boobu nga xam ne faratal bu farataal ci suñu kaw man ak yéen ñépp ñun ñoo ci yem kenn mucc ci lu nekk lu loo lu nekk la loo xamante ne bi ñun ñëpp ñun ñoo ko war a jëfe mu tukkee ci borom subhana taala mu jaarale ko ci kër yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla ku ko jox sa ndaw mu téyel la sa mag kon sa ndaw googu parafitool yow sama mbokk mu jigéen ci muur sa yaram parafitool loolu ci fegu parafitool daw lépp lu xaraam parafitool jublu ci sa borom balaa dee di la ñëwal ndax lu fi waay lànkadi lànkadi santaane yàlla boobu di muuraay bis dina ñëw dinga nga muuru par force te muuraay googu doo ko muur sa bopp ndax say mbokk ñoo lay jël sang la ba nga set daal di lay laxasa laxas fu nekk ci sa yaram ñu takk ko laxas ko ba mu wow après bu ñu paree ci loolu fan lañu lay jëme dinañ la jëme ci pax moo xamante ne bii pax mu xóot lay doon ci suuf mooy doon lal bi suuf mooy doon mbàjj bi suuf mooy doon naay bi suuf mooy nekk li nga xamante ne bi soo wëlbatikoo càmmoñ suuf ngay daj boo wëlbatikoo kan euh, ndeyjoor suuf ngay daj ndax su boobaa bu fekkente ne bi yow dangaa lànkoon santaane yàlla boobu bis boobu de defal nañ la ko par force mu neex la di nga ko def mu naqari na di nga ko def ndax ku nekk xam nga ne dee bunt la kenn ku nekk ci ñun dana ci jaar waaye balaa nga cay jaar bis boo ci demee ba di ci jaar na fekk nga làq li nga xamante ne bi mooy ngërmaane yàlla te bokk na ci di taxawe ay farata yi nga xamante ne bi allah subhanahu wa taala farataal na ko ci sa kaw yow jigéenu jullit bi te farata boobu ba ci jiitu ci ñun mooy ñu nëbb suñu yaram ñu muur suñu yaram ku nekk xam nga ne dee mi ngi dikkal dee dina ñëw balaa yàgg tuuti ku nekk ci ñun war na koo préparer ak anam boo ko mën di préparer rek saa su ne rek booy fàttaliku dee dina la mën a jàppale ci nga mën a moytu lu bari ci ay bàkkaar rawatina suñu jamono ji nga xamante ne bii jigéen ñu bari fetteerlu nañ ci col gu bon futti nañ seen yaram daanakaam kenn solatul yëre ci jigéen ñi te ñëpp nekk ay doomi jullit di génnee ci ay këri jullit di bàyyi yaay di bàyyi papa waaye waajur yi tamit am ci part de responsabilité boo xamante ne bii tey ñoom ñoo war a toog di digal seeni seeni doom digal seeni soxna ñu nekk li nga xamante ne bii mooy muur seeni yaram comme ni ko Allah subhanahu santaane te muuraay du aada kenn. képp ku ko def ci farata nga nekk képp ku ko def ci santaane yàlla nga nekk waaye képp ku ko bàyyi bàyyi nga farata képp ku ko bàyyi bàyyi nga li nga xamante ne bii mooy santaane allah subhanahu wa taala nga gis ne jigéen ñaari sutura rek la am muy sutura biir néegu sëyam wala mu nekk ci biir néegu waajuram ak li nga xamante ne bii moom mooy bàmmeel ñaari sutura yi dong la jigéen am kon rikk waaye suturaalal sa yaram balaa sutura bàmmeel di ñëw ndax bàmmeel lépp loo fa jiitalu doo ko fa fekk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne alxabru sunduqul amal bàmmeel moom mooy magasin li nga xamante ne mooy magasin jëf kon sa yaram bii muur ko nëbb ko ba nga xamante ne bis bu malakal mawti di la mu fekk anam boo xamante ne bi anam bu yàlla gërëm lay doon mu fekk anam boo xamante ne bi doo rus mukk jàkkaarloo borom subhanahu taala doo ki nga xamante ne bi moom mooy sa borom ci ñàkk jëfe santaane boobu waaye di nga am mbégte di nga am ak kontante ba nga xamante ne bi tey ñii di la muur jamono ji nga génne àdduna de wallahi muuraay gi dala cee fekkoon ñaat ci ay jigéen tey ñoo deewaale seeni hijaab ñaat ay jigéen ñoo deewaale li nga xamante ne bii moom mooy muur seeni yaram ba mu daj jigéen ñooñu duñu rus mukk ëllëg ci kanam yàlla ndax dañoo jëfee santaane yàlla boobu nga xamante ne bi moom mooy hijaab tey nag nga gis ne suñu jamono tey daanakaam suñu jigéen solatuñu yére te ñëpp nekk ay ay doomi jullit te koo ci ne doo jullit mu mer daanaka am tey boo demee ci milieu yi nga xamante ne bii forma fa la ëpp tey ay jigéenu jullit doom nga fay fekk soluñu yére boole ña ngay tux boole ña ngay naan jigéen tem ba xamatul li nga xamante ne bii tey moom mooy valeur ak fi ko islaam jële démb ma ne ñun jigéen ñi dañoo war a delloo yàlla njukkal moom mi nga xamante ne bii moo ñu jële ca tartar moo ñu ca métti métti moo ñu teqlee gas ñu ñuy suul ku nekk xam nga ne démb jaahil ya eggoon na ci ku ci am doom bu jigéen nga gas ko suul ngir ne dalay bañ a indil gàcca ngir ne bu takk xare amee du la mën a du mën a ànd ak yow ci xare ba ngir ne ëllëg si bi mën na la fee indil doom joo xamante ne bii du doomu yoon moo taxoon ñu nekk di gas di suul mais Allah subhanahu wa ci mbaaxam ci yërmandeem gëdd gi mu jox gëdd jigéen jàppale gi nga xamante ne bi jàppale na ko jigéen suturaal gi nga xamante ne bi suturaal na suturaal ko jigéen moo allah subhanahu wa taala moo ñu génnee ci xat-xat yooyu moo ñu génnee ci tartar yooyu moo ñu génnee ci métti métti yooyu waaye tey jox ñu tey ah, cër bu rëy ci islaam waaye tey mu jox ñu cër bu rëy ci dénku ñu lu toll ne nit ku nekk xam nga ne mosoo gis góor guy ëmb tey jigéen moom mooy ëmb président jigéen moom mooy jur sëriñ jigéen moom mooy jur wàlli jigéen moom mooy jur ab yonent nga gis ne jigéen nag moom ndax xam na li mu doon ndax xam na cër bi ko yàlla cërale ci islaam cër yooyu bokk na ci lu toll ni doomu aadama allah subhanahu wa moo ko teral mu ne wala xadd karam naa bani aadama man yàlla man maa teral doomu aadama doomu aadama boobu yàlla teral tey jigéen ci boppam ca la ko jaarale mu di ko jur ñaareel bi yow jigéen xalaatal ne allah subhanahu wa tey jël na saaru lëmm tuddee ko mbooleemu jigéen muy sootul nisaa yi boo delloo ci quran di nga ko fa fekk mu nekk beneen sag bu rëy boo xamante ne bi allah subhanahu wa taala nañu ko allah subhanahu wa taala sagalee nañu tànnaat ci biir jigéen ñi muy sayda mariama al batul daal di koy tuddeewaat li nga xamante ne moom mooy saar ci quran mu nekkaat beneen sag boo xamante ne bi suñu sag la jigéen ñi kon ñun tey lan la ñu yàlla deseel ñun tey lan la ñu islaam deseel ñun tey lan la ñu yàlla deseel haha kay ñun ñii ñoo war a delloo yàlla njukkal ñun ñii ñoom ñoo war a ñun ñii di jigéen ñun ñoo war a taxaw di taxaw ci santaane yàlla waaye taxaw ci amru bil maaruf nahi muy taxaw ci digle mbaax waaye di tere lu bon taxaw ci santaane yàlla bi nga xamante ne bi moom mooy muuraay mu sant ko ñun jigéenu jullit ñi ngir lan ñu ràññee ñeeg ñi nga xamante ne bi duñ ay jullit mal asaf tey suñuy jigéen ñi nga xam ne ay jullit lañ ak jigéen ñi nga xamante ne bi duñ ay jullit tey mënoo leen ràññee mukk ndax ñoo bokk même colin ñoo bokk même li ñuy def seeni bopp ñoo bokk moom li ñuy def ci seeni kanam lépp ñoom ñoo ko bokk te xijaab bi dafa nekkoon loo xamante ne bi dañu war a ràññeeku ci biir ñi nga xamante ne bi duñ ay jullit ndax jigéenu jullit démb bu ñu rombee dinañ xam ne ñii ay jigéenu jullit lañ ndax la ndax seeni col ndax la ndax seeni comportement ndax dal gi nga xamante ne bi dal nañ ko ci bu ñuy dox du ñu yëngal seeni yaram du ñu wane seeni awra waaye du ñu sol lu xat du ñu sol lu yaraa du ñu sol loo xamante ne bi dafay natt seen ay cër waaye bu ñu rombee di dem la di nga xam ne kii di dem jigéenu jullit la ndax col ga moo la koy njëkk a wax ñun tey fan lañu toll ci colin yooyu nga gis ne allah subhana taala cër yooyu yëpp cëralee nañu ko ñun ay jigéen beneen bi may ñëw ci ne jigéen ñi tamit suñu mbokk jigéen ñi nga xamante ne bi léegi ñi ngi muuru dem nañ ba mënatuñoo muñ li nga xamante ne bi moom mooy àdduna ci yenn yi nga xamante ne bi tey mi ngi am ci wàll bu ñu waree génn nan lañu war a comporté woo islam ne la yow jigéenu jullit bi boo demee bay génn solul comme ni la islam sant nga génnee noonu waaye bul génnee benn taar ci bitti ndax ay góori jàmbur ñoom ngay taseel ci mbedd mi ay góori jàmbur ngay jonjool ci mbedd bi kon euh, melal melekaan boo xamante ne bii ku la gis du fitnawu waaye yow tamit doo fitnaal kenn waaye maam asaf tey suñuy jigéen balaa ñëw génn bu ñuy dem xew dinañ dem salon ñenn ci ñoom may que bu def seeni kanam ba mel ne marque day taali ànd ak loolu yëpp lañu sol nekk loo xamante ne bi luy génne taar la mu nekk lu xaraam def parfum mu nekk lu xaraam nga daal di jël nag na nga so jël musóor ga ne ko tegg ci kaw muuraay ba loolu ban façon hijab la wallahi mbokk yi ba léegi damay toog ne mënumaa comprendre muur ba pare jël musóor teg ca kaw mënuma ko comprendre mukk te duma ko mës a comprendre duma ko mës a xam duma ko mës a miin saa ma ko gisee ku ko def ba léegi affaire bi daf may yéem yow jigéenu jullit bi nga ne léegi bëgg nga taxawee santaane yàlla waaye bëggoo àdduna raw la wabtaghi fima ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunia tayib allah subhanahu wa taala de nee na yow jullit bi a ah, boo nekkee ci àdduna bii na nga jëf jëfu loo xamante ne day mel ne tey jii dangay pare pour dem àllaaxira waaye nag wala tansa nasibaka min addunia boobu ndax dañ koo bëgg jël tey jëmale ko ci wàllu colu ak summeeku tey ñu ci ëpp ci ñoom dañ naa la wala tan sa nasibaka mina dunya nasibaka mina dunya dangaa war a fexe tey sa àdduna bi nga liggéey fi loo xamante ne bi ëllëg boo demee ci allah subhanahu wa taala doo meer di nga tase ngërmaande yàlla bul fàtte ne yaa ngi àdduna mais àdduna bi ci nga mën a liggéeyee sa àllaaxira àdduna bi ci nga mën a liggéeyee loo xamante ne bi allah subhanahu wa taala dala ciy gërëm àdduna bi ci nga mën a liggéeyee loo xamante ne boo tasee borom subhanahu wa taala doo rus tey ñun bëri na waaye na ci ñuy génn dinañ def suñuy xeeti kanam lu ñu neex jël musóor ga teg ca kaw ànd loolu di ko wàccee ci statut yi 24 heures vint 24 yaa ngi xijaab par nga jël caq ba nga takk teg ko ci kaw muuraay bi wala léeg-léeg nga génnee sa benn nopp tëj na la tëj na la muuraay gi na daj sa mbooreem yaram nañu xoolaat fan lañ toll tey ci aayaat yi nañ tollaat tey fan lañu toll ci saxaaba yaa di démb ni ñu doon taxawee santaane yàlla ak ñun tey nañ leen nattale wuute na torop ndax ñoom bu njëkk saabu bu yàlla ne xaala wala mu ne yonent bi salaay ne nii rek ñoom daal di nañ taxaw ci santaane boobu ñun tey na fa la ñuy nekk di ko déngi déngi naan waaye sama yaay sama papa suñu famille ñun xamuñu lii muuraay yi dafa ëpp muuraay du mës a ëpp ba àdduna di tukki axawaati axawaati muuraay du mës a ëpp lu dul ne santaane yàlla la boo xamante ne bi farataane suñu kaw maa ngi leen di giñal ci borom asamaan bi nga xamante ne bi moom mooy suuf muuraay farata la wallaahi muuraay farata la muuraay farata la du sunna mais farata la bu yàlla farataal suñu kaw kon nañu jëlaat kol yi teg ko ci yaram yi waaye na dëppoog li nga xamante ne bi moom mooy ngërmaande yàlla na dëppoog li nga xamante ne bi moom mooy ngërmaande yonent bi sallallahu alayhi wasallam na dëppoog li nga xamante ne bi moom la saxaabiyaat yi daan solo ñun suñu royukaay moom mooy waa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu royukaay mooy yonent bi ak ay soxnaam ak ay doomam ñun ci ñii la ñuy roy kon na dëppoog ña noonu doon solo ñu jéem forcé suñu bopp jéem not suñu bakkan yi not suñu bànneexi bakkan xeex ak ba mën a teg suñu tànk comme li islaam bëgg ñu soloo noonu ñu soloo noonu mais tey maal asaf yaa ngi muur nga sol jiin yaa ngi muuru nga sol sa tay yaa ngi muuru jël musoo teg ci kaw muuraay yaa ngi muuru génnee benn nopp yaa ngi muuru jël caq teg ci kaw teg na la wala yub diina zinatahunna illa ma zahara minha fan nga tolloog aaya kon il faut ñu dugg ci suñu ruq mën a kan daal di natt suñu bopp ci ngëmu saxaaba yi saxaaba yaa di démb ak suñu ngëm tey ba aaya bi wàccee fam leen fekkoon ku nekk aaya bi ba mu wàccee fam la fekk la nga yoroon nga daal di teg ci sa kaw nga daal di teg ci sa kaw tey jamono yegg na ci sax tey ci seen suñu Sénégal gee ñu nekk tey boo muuroowee noonu sax ñu ne la sëy ñuul yi xanaa yow lii rek nga am wallahi yow xanaa nii rek nga war a mën a muuroo xanaa gisoo diw ni muy muuroo diw de day sol cuubam yu baax diw de day def jees neeram jël kolom teg ci jël ay talon yu baax teg ci tayib def na ko mais yàlla sant ko loolu def na ko may yàlla gërëmul loolu yàlla lim gërëm mooy nga nëbb sa taar taar yi jëkkër yi ñoo ko moom mais mbedd bi moomu ko bul bañ ku la xas ci bitti mukk waaye boo duggee ci sa biir kër sa borom kër bu nee cëpp wàcc dina xam ne man fii ma dugg nii fekk naa fi jigéen ci wàllu col gi ci wàllu comportement ci wàllu mu defar kanamam jigéen ju taaram jëkkëram moom moo ko moom mais mbedd mi moomu ko kon taar yi dañ koy yemale ci biir kër yi waaye mu génn ci bitti biir kër gi yow jigéenu jullit bi solal sa tubay bu la neex solo sa baax solo sa tay baas bu baax solo sa grand bu solo sa marinière defaral sa kanam fu la neex rëddal rëdd ko fa parce que yaa ngi xaar sa boroom kër muy wàcc mu xoola di kontaan am ci tuyaaba adduniyaa mataa wa xayru mataa adduniyaa imraatu saaliha na nga fexe ba si yow nga bokk ci euh, jigéen ñi nga xamante ne bi dañoo sell na fexe ba bokk ci jigéen ñi nga xam ne dañoo yiw sa jëkkër bu wàccee ci biir kër gi fekk la fi na fekk nga mel melekaan boo xamante ne bii bu la xoolee kontaan ci wàllu comportement ak sa sañse ak na ngay solo waaye boo demee ba war a génn doxi soxla nag yow sama mbokk mu jigéen solu comme ni nga xamante ne bi loolu la islaam sant jigéenu jullit mu génnee noonu këram ndax allah subhanahu wa taala mi ngi naan na fii buyuti kunna wala tabarajna tabarujal jaahiliyatul ula jigéen ñi nañu sax ci biir kër yi waaye bu ñu génn génn ñu réer ñu njëkk ña booy génn solo solo solo solo solo sol say talon yu mag def sa saak fu ne nga takkal fa sa kanam génn góor gu romb cokkaas la te ñaar ci ay jigéen ñooy muuru yenn muuraay saa bu ñu rombee góor mu cokkaas leen su ma doon kol yaa may koloo su ma doon yëre yaa may sol waaye amul benn jigéen boo xamante ne bi muuru nga xijaabu charia muuru nga muuraay charia bi mu santaane muy sa muuraay mu tàmbalee ci kaw wàcc benn góor di la cokkaas amut mucc nga ci agression kenn du la agressé mucc nga ci ay góor di la tàppaas di la wax baat yoo xamante ne bi nag su dul noonu la waaye bépp jigéen boo xamante ne bii jël nga xol teg sa bopp sañse saa bu la góor cokkaasee rek delluwaatal ci sa ruq nga ne man sama xijaab bi moom mooy ban fan ban façon xijaab ndax saa boo rombee góor ñu wax ci su ma doon kol yaa may koloo su ma doon lii yaa may sol ni nga muuroo man neex na ma su boobaa bu fekkee muuraay ga nit la neex rek muuraay googu neexatul yàlla parce que muuraay charia yow jigéenu jullit boo ko muuraa dëgg kamay neex mooy ki nga xamante ne bi xam ne dëgg-dëgg lañ mooy taxawaayu jigéenu jullit ci muuraayam waaye bu fekkee góor bi mu neex rek su boobaa xamaa xamal na yow muuruwoo muuraay bi nga xam ne moom la yàlla gërëm waaye saa boo muuraa muuraay bi yàlla gërëm saa boo tasee góor goo xamante ne bi xolam dafa feebar muuraay googu du ko arrangé bal daf lay bañ bal daf lay jéppi bal du bëgg sax am ak yow wax parce que lan ni nga muuroo arrangé wu ko leneen lay gis mais dootu gis jigéen kon ñu jigéen ñi tey lii moo war a nekk suñu taxawaay si bu ñuy bu ñuy génn suñuy biir kër bu ñuy génn suñuy biir kër rikkuwaay nañu sol loo xamante ne bii du nekk loo xam ne dafay attiré ay góori jàmbur bu ñuy def suñuy kanam luy attiré ay góori jàmbur nañu mel melakaan bi nga xamante ne bi loolu la yàlla gërëm parce que yaa ngi dem yaa ngi ñëw xamoo fan la la dee di bettee kon jigéen dafa war a taxaw ci santaane allah subhanahu wa waaye jéem a taxaw ci ngërmaande allah subhanahu wa ndax àjjana ñun yàlla daf ñu ko yombalal waaye ñun ñun ñoo ko bëgg xañ suñu bopp tey nan la ñu ko yàlla yombalee yonte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko mu ne ida sallatil mara xamsaha wa saamat sahraha wa xafizat farjaha wa ataat zawjaha daxala si jannati rabbiha mu ne jigéen bu jullee julli julli juróomam mu woor weeru kooram mu sàmm boppam ngir jëkkëram waaye nag mu daal di topp ndigalu jëkkëram ci kaw lu neex yàlla yoon yonent salaay salaam nee na su boobaa dina dugg àjjinay boroomam ci beneen riwaaye mu ne dinañ ko tijjil juróom-ñaari buntu àjjina ko seetal bunt bu la neex nga duggee kon ñun àjjana yomb na ci ñun waaye ñun tey ñun ñoo ko jafeel ci lan ci bëgg àdduna ñun ñoo ko jafeel ci lan topp àdduna bi nga xamante ne bii dafa jeex ba pare ñun ñoo ko jafeel ci topp suñu suñu àjjana ñun ñoo ko jafeel ci topp àjjana bi nga xamante topp àdduna bi nga xamante ne bi jeex na ba pare àdduna bi nga xamante ne bi dafay naxaate àdduna bi nga xamante ne bi dafa bari ay lor yoo xamante ne bi mi ngi ci te ñun jigéen mucc ñu ci lor yooyu te duñ ci mucc mukk lu dul ne dañoo taxawee li nga xamante ne bi mooy santaane yàlla bi nga xamante ne bi mooy xijaab bokk na ci xijaab euh, baax gi baax ci jigéen jullit bu koy def muy dangay day defal sa deru yaram moo tax pare na jigéen ñuy hijaab dañ leen di tuumaal dañuy muur ba pare di xeesal laa wakallaa dafa fekk ne sa sa taxaw ci santaane yàlla moo mel noonu muuraay yi ngay muur dafay defar sa deru yaram ba deru yaram bi dafay set wecc wecc wecc ànd ak loolu yëpp feebar yi nga xam ne mooy feebar deru yaram bi danga ciy mucc xanaa kon la ñu yàlla waxoon moom ma nga ca hijaab bi dina defar sa deru yaram ba képp ku la xool dina bëgg am teint bi nga am sa yaram waaye musal ci bépp feebaru deru yaram bépp feebaru deru yaram muuraay googu daf la koy fegal daf la ciy muccal da nga koy da koy soli lool te saa boo toogee ci ay jigéenu jullit ba nga dindi sa muuraay teg dinañ ne la yow lan ngay diwoo looy diwoo ban diw ngay diwoo alaam amaana diw woo amaana sax journée bi benn yoon nga ciy sangu waaye xéewalu yàlla gi mu def ci muuraay ak yërmande gi mu ci def ak secret bi ci nekk mooy ne jigéenu jullit bi nga xamante ne dafay nëbbu cëram benn bët du ci tege boo xamante ne bi waru cee tege waaye nag ngelaw bu ñëwee du am fu mu bëtt yaramam dugg feebar yi nga xamante ne bi ay balaa yoo xamante ne mu ngi ci jaww ji di wër du am fu mu tege ci yaramam ndax ne taxawaa taxawee ne santaane yàlla boobu di xijaab tey nga gis ne jigéen ñi la dàq muuru tey wallaahi tey macha allah koo ci xool xoolaat ko dinañ bari karaw macha allah macha allah ku leen xool di nga xam ne ku dugg seen biir kër fekk leen ñu solu ba toog di nga ne déedéet du kii laay taseel ci mbedd bi muy muuru kon kii nii la mel wallahi du benn du ñaar kon dañoo war a gën a taxawaat ci lii nga xamante ne bi moom mooy santaane yàlla te buñ koy def nag nañu sellal suñu yéene def ko ngir jëmmi yàlla waaye buñ ko def ngir der bu rafet buñ ko def ngir karaw bu bari mais nañ ko def ne xam ne li santaane yàlla boo xamante ne bii sant nañu ko waaye lee dañ ko ci doon dolli di xamal ne muuraay gi ni mu lay protéger ci sa yaram noonu lay defaree sa der ni muy protéger sa bopp noonu lay defaree sa karaw ndax ne yàlla du waxantu lépp lu mu wax dëgg la ñun doomu aadama yi kay ñoom ñoo toll ci buntu sikki sàkk ba léegi ndax war nañ koo def rek wala waruñu koo def waaye nag nañu yamale taar yi ci biir kër yi bu ñuy génn nañu mel comme ni ñu islam sant ñu mel ko bu ñuy génn taar yi nañ ko yamale ci biir kër yi boroom kër yi ñoom ñoom moom taar waaye mbedd bi moomu taari yi mbedd bi muuraay la moom gu daj gu fatt goo xamante ne bii bu dëppoog li nga xamante ne bii mooy churut yi la mbedd mi loolu la moom biir kër gi li mu moom mooy tay baas yi la moom biir kër gi li mu moom mooy tuba yi sa jëkkër ko moom biir kër gi garaamu bi sa jëkkër ko war a gis maquillage bi sa jëkkër ko war a gis rosa bi ngay def sa jëkkër moo ko war a gis parfum bi neex bi ngay xeej pour génn yamala ko ci biir kër gi ndax loolu jëkkër ji moom mooy ki ko moom moom la ko yàlla jagleel waaye mbedd mi li mu moom mooy muuru ba daj mbedd mi li mu moom mooy solu ba mel ne jigéenu jullit ni ko yàlla sante mu soloo noonu